maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu ak ngërëm délégation bu màgg bii nga xam ni euh, suñu kilifa suñu sëriñ suñu xalif muy euh, sëriñ Muntaxa Mbàkke euh, xalif général des murit yàlla na yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér délégation bii mu yónni mu koy mu ñëw fii ci dakaar ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo yor Masaalikul Jinaan pour ñëw waxtaan ak ñun ci événement bi nga xam ni moom la ñu jëm entre le 20 et le fii ci dakaar muy événement buy commencé ci région yi waaye di ñëw fii également ci dakaar ñuy euh, célébrer centenaire li ñu wax centenaire retour Cheikh Ahmad Bamba fële ci Touba. alors euh, centenaire nag euh, ni ko xamee defe naa ni. Euh, loo loo lu la yàlla may may may defe naa ne benn nga koy célébrer alors euh, bi ñu ñëwee nag euh, sëriñ bi yónni leen jox leen mission ànd ak ñoom également ci programme bi ni leen dem leen ci kilifa yi ngeen eggale fa xibaar bi donc ñu yëgal ma ko ma recevoir leen tey fii ànd ak suma collaborateurs yi ñu déglu leen bi ñu leen dégloo it. ñu comprendre li nga xam ni moo leen yëkkati waaye ñu. xalifa de Mouride Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo joxe ndigal ci bis bi di leen nuyu ci turu sëñ Ahmadou maxtar mi nga xamante ne bii moom mooy saytu bis bi jël ko nag dénk ko sëñ Cheikh Abdou Aziz mi nga xam ne mooy le président du comité de pilotage mu ak sëñ Omar ñu jiite délégation bi ak mbooleem ñi ñu àndal. rawatina ñi nga xam ne ñoo jógee Massalikul Jinaan tewal fii eh, jëwriñ Mbackiou Faye eh, di la sant bu baax di sant say say kilifa le ministre de l'intérieur le premier ministre et le président de la république ci yitte ji nga wane ci mbir mi bi nga ko yëgee ak léegi te yàggul dara eh, di la xamal ne sunu xel dal na dal na ndax li jiitu woon ndax foog naa ne bii nekkul su première intervention am Massalik bi ñu ubbee jumaa ji ba léegi lu ñu fa def yow yaa koy def te wax nañ ko fi léegi lépp lu ñu fa def rek taxawaay ba ca war matale na kon loolu moo tax ba suñu xel dal ci mboolem ni nga xam ne ay du sax jàngoro waaye xaj na lu munta ñàkk la te nekk ci seen loxo ñu dikk gaaral la ko nga xamal ñu ne taxawaay ba ca war di ngeen ko taxaw yow ak mboolem service yi nga xamante ne bii ñoom ñoom ñoo ci aju kon ñu ngi lay sant si loolu di la di la gërëm ci loolu euh, di soññ rek mbooleem euh, mbokki taalib yi nga xam ne ñu ngi seetaat ñu xam ne bis bi bis bu rëy la ndax mooy téeméeri ati yi ñu big si sëriñ bi ci ci Touba ñu koy def fii Massalikul Jinaan lu tollook dimanche 21 juillet 2024 di def ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne bu ñu xëyee lañ fay nekk di ko dale 10 heures ba gannaaw timis kon ñu ngi fàttali mbooleem mbokki taalib yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp